set si Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la si Setsima TV xibaar yu wér di wóor. salaamaaleykum mbokki Setsima TV encore une fois di leen nuyu bu baax baax di leen wax ne ni ngeen ko bëggee noonu rek lañ koy defee ak yéen tey nag ñu ngi fii euh, ci fi nga xam moom moo di police golf tey bu ñu nee police euh, police li mu làmboo dafa bari ku ne xam na ne police boo ko waxee rek euh, plainte am na ci yoon euh, tey kii nii ñi nga xamante ne moom lañ toogal muy passisé moom mooy bind plainte yi nga xamante ne moom mooy jaar fii yëpp ci police golf ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii daf koy bind tey ñu fas yéene ñëw waxtaan ak moom ci li ñu waxtaan ak moom nag mooy wàllum plant wàllum ak yeneen yeneen yoo xamante ne bii mi ngi xaw fii na ci police bi duñ def lu dul waxtaan ak moom dugg ak moom ci waxtaan bi bàyyi ko mu nuyoo ñu daal dugg ak moom ci waxtaan papa nuyu nañ la bu baax a baax passisé ñu ngi lay fay di fay di nuyu mbooloom auditeur mbaa eh, spectateur mm-hmm. di leen di ñaanal di leen di di leen di ñaanal di leen di ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw papa tey bu ñu ñëwee eh, dañuy ñëw eh, ci li nga xamante ni moom moo di wàllum plainte tey ci la ñuy ñëw bëggoon nañoo xam tey exactement avant tout lan mooy plainte plainte ci nu ma ko mënee wax mm-hmm. nu ma ko comprendre mooy citoyen bu am lu muy ñaxtu ñu tooñ ko mu jombale boppam xuloo xeex saagante mu jàpp dañ ko tooñ fan lañ dem fajee loolu fan lañ ko mën a fajee muy police bu doon citoyen bu bu bu am capacité bind la mun na ko bindal boppam dans les formes et dans le fond mu ñëw déposer ko police police def liggéeyam parce que la police et la pour ça mhm. pour nu protéger pour régler les différends dans la société à son niveau lu nga xam ne il est de sa compétence su ko mënul defar bu ko mënul bind comme le Sénégal nu ñu wax rek est à 80 pour cent analphabète les citoyens sénégalais ñooñu nag ñooñu ñun ñooñu fi tax a toog maman ba nga xam ne ak papa ba nga xam ne dañu sàcc portable am mbaa dañ ko tooñ mbaa dañu sàcc ay xaram mbaa ñi jigéen ñi maanaam exemple affaire yi tontine yi ak yooyu buñ ci amee problème mbaa lépp lu mu doon lu nga xam ne jàpp na ni tooñ nañ ko rek xelam lu mu njëkk def def naa lu mu njëkk a daj mooy naa dem police. waaw. Euh, ba tey loolu mooy plainte waaye ba tey ci biir plainte papa bëggu nañoo xam. aussi loolu mooy sabab lu plainte. Mhm. loolu mooy. mooy sabab lu mooy sabab lu plainte mooy cause bi nga xam ne. mooy cause bi nga xam ne nit ki day ñëw fii ne dama bëgg a bind plainte. Mhm. plainte bi nag ça répond à des règles. Mhm. ñun nit ki amuñu droit wax ba waxuñu ko bindal ko lu ëpp lu mu wax ou bien lu ko néew on doit essayer autant que possible d'écrire quelque chose qui reflète exactement la déclaration de la plaignante. est-ce que bu fekkee est-ce que bu fekkente ne bënn ngeen ci lu ëpp wala lu si néew plainte bi mën naa échouer par rapport ak moom bu demee liñ koy laaj. noo du échouer mais suñu éthique. Mhm. permettre ñu ñuy def loolu parce que mu boobaa traitement dossier bi dafa am fu muy sooxe te suñu responsabilité mun na ci génn te nag loolu dañ koy daw ala kulli xaal ñun bëgguñu suñu responsabilité tax nit ki dëggam mu ñu salfaañe ko ou bien bu doon nekkul ci dëgg mu am ci lu nga xam ne waru ko am ñun dañuy bind rigoureusement lu nit ki wax kàllaama bu mu ko munti wax ñun dañ koy transcrire tubaab dans la forme et le de façon claire et nette pour que ki nga xam ne moom la plainte bi mooy destinataire plainte bi muy commissaire d'abord. Mhm. bu ko jàngee rek mu xam kii affaire bi nu mu tëddee. nu mu tëddee waaw. sans que di ñëw di expliquer. non non non sans que ñëw moom kayit bi lay xool rek. Mhm. mu comprendre problème bi lan la. Mhm. léegi nag comme problème dafay posé wu moom bu ko xoolee parce que moom rek moo am sañ-sañ wax ban tànk la ci yoon taxaw bu doon nangu na ko jël ne kii. moom ci compétence am ak attribution police mun nañu traité problème boobu moom mooy borom kër gi am na ay ndaw mu jël plainte bi attribué ko ay ndaw ay ndawam loolu yenn enquêteurs yi mhm. ñooñu ñooy def nag le travail de base ce travail de base là consiste à écouter d'abord le plaignant ñu déglu ko dans le fond et la forme léegi nag ku nga xam ne moom la indi ci yoon kooku dañ koy woo parce que nag tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mhm. comme yow ne nga Masamba ne na ma Mademba moo ko tooñ dañuy ma Mademba ne ko yow Masamba dafa ñëw fii ñaxtu mu ne yaa ko def li yàq li ko di ñu déglu ko moom tam version am. Mhm. c'est là où se le travail de la police et par-delà de l'enquêteur qui de par sa compétence son professionnalisme arrive à démêler le vrai du faux moom mooy def liggéey bi. Mhm. voilà papa dañuy ñëw ba tey ci plainte euh, est-ce que mën nañoo xam tey fii. maanaam yan plainte moo ëpp li fi ñëw ñu la koy bind a ah en tout cas de man de lu ma la mën a wax mooy. Mhm. ñun informel la ñu mais dañuy formaliser. ok aujourd'hui tey jii ñu ngi ci dix huit mille quatre cent cinquante cinq plaintes. dix huit mille quatre cent waaw ci at bi. non non bu ñu fi commencé ba léegi deux mille ba léegi. 2013 ba léegi. lu ñu bind quoi am na yu nga xam ne nag binduñu ko mais nag essentiellement on est à ce chiffre là. Mhm, mhm. plainte bi mënuñu def mënu def statistique mais xam naa ni problème de voisinage dafay am dëkkandoor. dëkkandoor. problème de vol dafay am. Mhm. problème de agression dafay am. problème d'arnaque dafay am. ay escrocs yi. daanaka liggéey police ça reflète les maux de la société feebari société bi jàngoro yi nekk ci société bi tooñante yi du fay am loolu boo ko buggee xam boo ko bëgg boo ci bëggee am une idée foo faut aller à la police nga seet ñoom yan la ñuy lan la ñuy traité comme dossier waaye nag leena de man vraiment dama ko noté te am naa sa kersa pour wax ko mhm. lu ma la wax nii dix huit mille et quelques plaintes. Mhm. tu pour cent ngay gis ñu porter plainte un chrétien. Mhm. waaw un pour cent ou moins d' un pour cent. Mohamed contre Babacar Ousmane contre El Hadj <laughs> Khadim contre euh, non yooyu non yooyu daal dox wax dëgg yàlla loolu moom daf ma def équation. Mhm. daf la def cas. daf ma def cas. daf ma def kaalaalo bi nga xam ni man dama demande ñun ban société la ñu nekk. leneen lu ma frappé mooy temps yi moom vraiment depuis daaw ba daaw jéeg depuis 2018 vol portable c'est devenu un sport national. <laughs> sport national. 90 pour cent plainte yëpp sàcc portable la. Hmm? te taa croire que vraiment sàcc portable daal dafa nekk benn phénomène bi nga xam ne c'est incroyable. ok ok. papa ba tey ci plainte euh, ban plainte nga fi mës a bind boo xam ne bi yow maanaam jaaxal na la plainte bu la mës a jaaxal am na. non plainte yu may jaaxal mooy. Mhm. baay ak doom doom ak ndeyam ñaari frère yu bokk ndey ak baay. am na ñu ñëw di plainte seen yaay wala seen papa. non am na ñu bëri ci gën a baay waajur bi mooy ñëw plainte doomam. Mhm, waajur bi ñëw plainte doomam waaw parce que day doon xale bu nga xam ne dafa léegi. ñaareel luñ lu ma ci gën a remarqué day doon caat bi. caat bi lay doon. caat bi lay doon nga xam ne on lui a mais dafa mel ni loolu loolu moo ko yàq. Hmm. waaw jigéen jëkkër ak jabar nag day am mais foofu dam la plupart du temps violence conjugale la. violence exercée par lom sur la femme yu métti sax yu mitti hmm? yu métti laa la wax. te man du ma mën a gëm ni jigéen nga gis ko bëgg ko marié ko ngeen am benn doom ñaar ba ñett ngay jëkkati di toj bët bi di toj gémmiñ bi di ko def yu nga xam ne wax dëgg yàlla man loolu wax dëgg yàlla dafa ma ëlëm loolu gis naa ko fi vraiment yooyu moom damay découragé sax su ma su ci tombee ok papa euh, dañuy ñëw lan nga ñu mën a jàngatal ci problème mu Sonko bi mu am nii actuellement en tant que koo xam ne ne mi ngi bind plainte lan nga yaakaar ne moom la plainte bi demee ak tam est-ce que nga fee am euh, plainte boo xam ne kaw viol la wala loo xam ne lu nduru viol la traité nañ fi ay cas de yu bëri mais cas de bu amee ñun ci suñu mandute mhm. ku ñëw ne suma doom dañ ma violé ou bien dañ ma violé comme suñu liggéey lu mu ko laaj rek dañuy bind rek sa déclaration. maanaam la mu wax rek lu ma wax rek la ñuy bind ñu jotali ko yoon yoon nag moom mooy déterminé. Mhm. ñun buñ ci amee suñu santiment personnel duñu ko feeñal. du mhm. bokk ci bind bi. dañuy bay rek yoon lu may wax rek. ñun duñu attee yoon mooy attee waaw mais parfois comme yow ni nga ko waxee yàgg nga bind plainte nit ñëw wax ne lii ak lii ak lii lañ ma def rek nga xam ne kii waxul dëgg wala nga xam ne kii wax na dëgg waaw non du ma ko xam mais nag nit ki su waxee ak nu muy waxee ak nu ma ko gisee naa ci am yëg-yëg ci am yëg-yëg dinaa révolté wu parce que bu doon xale bu 9 ans la mbaa bu 5 ñu ñëw yaayam jiital ko mu ne diw mooy ak ak kawam dama ciy gis sama bopp sama jaboot ak comme comme borom borom jaboot la mhm. daf may révolté daf may miti daf may naxari mais damay maandu téye sama bopp ne ah lii de moom yal na ko yàlla saafara yal na ko yàlla nit mm-hmm. fii mm-hmm. Mm-hmm. am na solo ba tey papa dañuy ñëw ci leneen mooy euh, en tant que handicapé euh, am na sa fii ñoo xamante ni ñi ngi toog ci mbedd yi di yalwaan am ñoo xamante ne defuñu dara mais yow yaa ngi jël say initiative chaque jour yaa ngi ñëw di liggéey di am loo njëbbul sa njaboot tey exactement loolu benn message nga ci joxe message bi ma ci joxee mooy handicapé état d'esprit la mhm. nit ki mën nga am ñaari tànk ah, mën nga nekk ak nit ku nga xam ne da nga wér da nga am lépp nga handicapé mentalement waaw handicapé physique quel que soit la nature de l'handicap ça ne doit pas amener la personne à se croire euh, moins qu'une personne humaine nit nga rek tant que sa xel handicapé wul tant que sa xel muuru sa xel moom boo ko handicapé yàlla sax wa wàccoo na ak yow ci jullit ci jullit yi mais tant que sa xel mu ngi dox yow war nga mën a am loo def dëgg la mun loo dem def yëfi dokeer bu doon handicapé physique nga mm-hmm. mais war nga mun a am loo def man am naa ay association d'handicapé yu ma encadré ay non voyant ñuy defaral ay dañuy defar ay ay ay ay serpillère mm-hmm. ay handicapé moteur yi nga xam ne ñoom dañuy defar ay enveloppe avec du papier craft dégg nga mhm. handicapé bu doon encadré nañ leen regroupé nañ leen dimbali nañ leen mun nañ leen orienté ci benn activité bu nga xam ne nañ ci gis seen bopp nañu ci am seen sutura nañ ci mën a yor seen jaboot mhm. mhm. loolu bëri na fi y a beaucoup d'associations d'handicapés qui encadrent des personnes en situation d'handicap ñu nga xam ne ñu ngi liggéey léegi nag néanmoins y a un pourcentage ba nga xam ne ñooñu ñu ngi ci tali bi. Mhm. toog di yalwaan bon peut-être ñooñu amuñu chance am ku leen encadré mbaa ku leen orienté. Mhm. ou bien il trouve que loolu moo gën sax dafa am ñu ci tane man ma benn tànk laa am. mais am na ku yor handicapé de deux des deux jambes mu ngi mu ngi watatu. kooku maa ko tane kooku dama koy yërëm kooku suma ma ko mënee dimbali dama koy dimbali. Mhm. dégg mais am na ku nga xam ne tey dara jotu ko mais ci xelam ak comportement ak handicapé handicapé sax moo ko tane. dëgg la parce que nitee wut. Mhm, mhm. parce que nit doomi adama ñaar moo nekk ci yow humanité ak animalité. Mhm. bu loolu yow am nga humanité loo munti doon ci àdduna même boo nekkee handicapé di nga garder ta dignité di nga ko sauvegarder. bu loolu animalité nag moo dominé ci yow kon yow moom wax dëgg yàlla loo mënut def rek. nga nekk handicapé ou pas tu te comportes comme un animal. dëgg la euh, papa li ñu cëralee woon ci waxtu euh, mi ngi jeex ñu bëggoon xam lan mooy sa dernier kaddu. sama dernier kaddu ah maa ngi lancé un noppel à toute la société ñu dellu ci suñuy valeur surtout valeur religieuse. Mm-hmm. islam bayiwul dara. religion ahlul kitaab yëpp muy l'islam muy te bayewul dara nañu nekkal nit. ñu dimbaliyante ñu amal ñu am yërëmande suñu biir am solidarité suñu biir bu kenn xeeb kenn ku ci nekk foo nekk yàlla la fa orienté te foo nekk bu la fa yàlla orienté ne la jox sa wërsëg nit ki warul xeeb wërsëgam nit ki war na fu mu toll sant yàlla bul xool ku la ëppale bul ko bul ko bul ko bul ko iñaane parce que yow boo xoolee ku la ëppale nit mu ngi xool ni yow yaa ko ëppale waaw nañu am le sens de la solidarité mais en toute chose l'individu doit être digne de sa personne mhm. ñu sant suñu waajur yi parce que éducation de base bu ñu jox mooy reflété ci suñu vécu yi mooy reflété ci suñu cursus mooy reflété ci suñu àdduna ci ñuy doxalee àdduna mhm. sant suñu waajur yi bu baax a baax a baax mhm. mag de vraiment def nañu lu ñu mën ci ñun ñun ñoo war a continuer nangul lu ñu yaree ñu continuer teg suñu tànk ci siraatal mustaqim ñu ñaanal Sénégal jàmm ñaanal ñaanal ñëpp jàmm ñaan vraiment dëkk bi ñu gën a am solidarité entre nous. am na solo waaw xam nañu sonn. Mhm. dëgg dëgg société bi nañ leen dimbali. dëgg waaw loolu la. am na solo à part ça nag man je si suis pas tellement politique moom lépp lu laal politique moom. kii ma ci man daal social laa xam. mais politique moom xaw ma social. xaw ma politique effectivement social laa xam. Uh-huh. xaw ma politique. Uh-huh. waaw papa ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax. voilà gis ngeen ko noonu mbokki Setsima TV tey euh, Pa Cissé lañ fi invité woon euh, ci rubrique bi nga xam ne moom moo di euh, porte plainte gis ngeen lim fi développé yëpp li nag dina tax ñu bëri dinañ mën a xamaat xam fu ñuy teg seen tànk xam li nga xam xamante ni moom moo di seen yoon xam li nga xam moo di seen droit acca di leen jox dig daje beneen yoon fii rek lay xewee saa su ne ni ngeen ko bëggee noonu rek lañ koy xeet defee ak yéen ciao ciao Setsima TV en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér